asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gën ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bés kolos bi ndax lu ñu dugg rek nga bokk ci ña koy njëkk a gis wéy leen di liker te di commenter te di partager bokk na ci li ngeen ñu mën a soutenir. tey nag dañu ñëw ak ci seen rubrique découverte rubrique découverte nag bu ngeen ko déggee bépp doomu Sénégal te muy football te football am ci moom yaakaar muy football ci bitim réew wala fii ci biir réew mi dinañ ko indi ngir xamale leen ak moom dinañ ko indi ngir wax leen talent bi nga xamante ne moo nekk ci moom tey nag ak ñu fas yéene indi mi ngi tudd Alexandre Schmidt jamono yi ma nga ca championnat bu Portugal ci club boobu di Vizela moom nag ak ndaw la lu mën football te football teel a am ci moom yaakaar pour ñi ko xamul nag doomu Sénégal la ak Autriche ndaxte papaam moom mooy sénégalais yaayam di autrichienne mi ngi juddoo ci l'autrice le 19 janvier 1998 ci ville bu Vienne mi ngi mesuré 1 mètre 93 doon attaquant ay atam nag jamono yu buñ koy xayma mi ngi ci 24 ans. ñi ngi ko formé ci euh, club bi ñu naan Red Bull Salzburg euh, club boobu nag ku ne xam na ne day forme ay ndaw euh, ay footballeurs yu bari formé nañ la ku leen mel ne ku ci mel ne Sadio Mané ci club boobu jaar na fa kon sénégalais yu bari xam nañ Salzburg foofu nag fa la nekk tooñ na fa ci petite catégorie muy U17 U18 ba U19 ci noonu nag mu toj ci Youth League yi maanaam Ligue des champions xale yi. foofu noonu euh, ci atum 2016 2017 bokkoon na sax ñi nga xamante ne ñoo tax club bam jël li nga xamante ne mooy Youth League ba sax moo dugaloon ca final ba loolu waral sax ñu gën koo ràññee wante moom nag euh, mi ngi commencé euh, football carrière professionnelle am ci club boobu di FC Lifelink gannaaw loolu moom ñu teel ko repéré xam ne xale bii talent mi ngi ci moom football dina am ci moom yaakaar ëllëg ba tax club yu bari soxla woon ko jamono yooyu ndax ni mu tojo woon lis ligue youth league muy ligue des champions xale yi club bii di la LASK nekk foofee ci Autriche daal koy indi ci clubam foofu nag euh, mën nañoo wax euh, defu fa carrière bu ñu wax parce que dañ ko doon aale euh, ci lu bari di ko def prêt sur prêt ba ci saison 2020 2021 moom nag di Alexandre simit ci la tojee ndaxte euh, en 32 match mu dugal 13 euh, bi le waral club de di lask dat koy jëli. nekkat boy bi dafa un ne Magna. na euh, gën naa ci yu club le le 31 juillet 2021 bu ñëwee foofu nag ñu jàpp que ne dina saison de confirmation voilà euh, ce am yaakaar ci mom mais malheureusement soti ndax ndaxte bobu la saison mom dund la saison bu metti ndaxte blessure sonal ko ak changement d'entraîneur def saison bu ñu wax lañ ko doon xaare daal def wante ba talent bi mi ba tax jamono yi ñuy wax ak yéen nag jóge na ci club boobu di LASK dem ci club boobu di Vizela ci championnat bu euh, la ndax ñoom xam nañ ne booy bi talent mi ngi ci moom saison bi nag ñi ngi xaar mu def saison bu mag ndax ñu bari xam ko bu ñu waxee attaquant nag dañuy wax ngir mu dugal ay bii def ay passes décisives looloo loolay tax public bi gën laa xam loolay tax nga am visibilité en tout cas ñi ngi xaar loolu ndax euh, bu defee loolu rek Sénégalais yu bari dinañ ko xam ràññee ko. ndax mu mën a am visibilité sax euh, dirigeant yi équipe nationale bu Sénégal jéem koo ceetu en tout cas talent mi ngi ci moom te ñu ngi xaar ah, ci à l'avenir mu def euh, ay performance ay prestations yu am solo kon mbokk yi leen leen andiloon kii moo nekkoon Alexandre Simit jaa ngeen jëf